mooy Cissokho euh, Banassanou dinañ koy faram-fàcceel ndax sunu kër gi moom ku nekk ak li nga xamante ni moom ngay def waaye rawatina it bu kenn ñëwut it keneen dala koy defaral. Hmm. mu nekk it lu professionnel ci kàttanu yàlla noonu lay demee te Cissokho euh, lan ak lan mooy kawteef ci journaux yi. kawteef yi dañuy tàmbali. Hmm. tey kawteef yi amuñu rek ci journaux yi jël nañ ci journaux yi. dugg ci internet am na am na yu ñu jël feneen. acca <laughs> mi ngi noonu léegi ci ci ci journaux yi. ay maa météo bu ñuy bu ñuy njëkk. bu ñuy hmm. njëkkee dafa am benn garde forestier boo xam ne da doon arrêté benn camion. waaw mu koy arrêté camion bi fëx fël ko mu ñàkk ca bakkanam. Oh. mu nga xëyee fële ca Linguère. camion ba kenn jàpp ko ci commune da Dayli foofu la xewee camion bi jàpp nañ ko waaye eh, loolu daal dañuy moo moo am moom la waa Vox Populi. ci mhm. seen page 3 wax. xanaa gisu ko. xam naa gisu ko wala mu doon daw ak seen frein yi. Mhm. xam nga yooyu. yooyu tam ndax affaire mi ngi am vers huit heures kon c'est-à-dire leer na. leer na leer na wala it kenn xamul mu am lu mu lu mu yor te bëggul ñëw ñëw ñu gis ko waaw loolu la parce que ñoom du ñu arrêté n'importe si ku ñu ciblé rek am na lu tax dañuy dellu fële ci Italie dañuy dellu tamit dafa am ku fa ñàkk bakkanam mhm. di benn doomu sénégalais mi ngi tudd Modou Ndama Ndiaye baax na sénégalais léegi ñu jeex de baax jeex de ñu ngi mhm. moom dafa lab dafa lab dafa lab ci benn. dex dex bu bu nekk foofu noonu benn fleuve. ci la doon sangu mu fa fa lab. Oh. mu lab nag ñàkk ci bakkanam. fu mu toll nii nag tembe tembe xam nga nga gis tubaab lu baax meeru ville ba. Hmm. mooy def ket. pour ñu dajale xaalis. kooram ñu indi ko Sénégal indi ndax ndax lii lii la am trajet xam naa yàlla foofu la woo moomee woon kii mm-hmm. woon. ñu dem nag ca kawteef ya. ñëwal <laughs> Sali ma ne bu ñëwee waay daal bu ñuy woowee WN Nicolay. Mm. moo gis benn xale benn jigéen boo xamante dafa accroché drogue. Mm. mu sàccloo ko un virgule huit million. léegi fu mu ko sàccee woon. waaw moom dafa dégg vendredi passé benn waay bu ñuy woowee Duudu Mbóoj. Uh-huh. Euh, Duudu Mbóoj moo dem ci commissariat bu Saly nga xam ne commissariat bi. Uh-huh. bañ ko fa tegee yàggul ndax gisoon nañ foofu dafa am criminalité. Uh-huh. ñu créé fa pour mu wàññi ko foofu te Saly am na commissariat am na gendarmerie. waaw rek ñu kii ko. léegi ba mu demee porte plainte ba mu porte plainte mu ne dafa am ku ñuy wax F Diop. F Diop ku jigéen. koo xamante ne. dañu jël check am bu def un virgule million mm-hmm. te chèque boobu te ku fa jóob boobu noonu f jóob boobu dafa nekk di eh, collaborer ak ku ñu benn xale boo xam ne vingt quatre ans la am mm-hmm. mais eh, ah, opérateur économique la mu mm-hmm. ngi tudd WN Nicolay ok léegi nag kooku nag mu porté plainte policier ak seen xarante ñu jàpp f jóob indi waxtaan ak moom ba ñu waxee moom moom mu ne moom mu reconnaître ni loolu ñu wax moo ko def waaye ki ko ci dugg ku ko ci ku ko defloo mooy WN Nicolay moomu. maanaam kon ay frère lañu. non non F Diop. waaw ak WN Nicolay. waaw WN Nicolay. waaw moo sàcculoo F Diop. ah ok ok maa ngi soog a. waaw ah, ñu sàcculoo ko mu sàcc. ñu sàcculoo ko mu sàcc waaye. xale bu jigéen dégg na ndigal ba dee. xale bu jigéen dafa accro ci drogue. ok c'est-à-dire bu jëlul drogue. du nekk. maanaam te bu ko jëlee du xam lu muy def du ànd ak sago xam nga drogue moom boo jël boo jëlul boo demee ba yegg si boo ko jëlul doo nekk boo ko jëlee tàggoog sa sago xam nga ni kon léegi xale bu jigéen kooku nag euh, Nicolas moomu mm-hmm. vendredi samedi gars yi may dimanche mm-hmm. gars yi nee nañ ko taral jàpp sama xarit yi sa waay sa gars yi amuñu morom jàpp nañ ko jàpp nañ ko daal loolu daal ba nga xewee fële ca Saly ca département Mbour euh, waaye policiers yi ñoom ñu ngi fi rek classe yoro jong geeg hmm. matabara en tout cas daal muñu moroom kawteef moom bu mënoon hmm? bu mënoon di rab baaman kawteef mi kawteef arrêté leen vraiment vraiment ah am na beneen am na beneen beneen kawteef beneen mooy ban benn coowal viol suivi de grossesse la moom bari na ci réew mi. AG maa ragal ne nag jàmm. soixante quinze am. Mhm. benn xale bu am seize ans ci yoon. ne daf kaa accusé ko mhm. ci ëmb. ko de pédophilie. Mhm. de détournement de mineur. ok. waaye nag moom. soixante quinze la am. moom nee loolu yëpp amul. d'accord lan la teg ci table ji. nee na. Mhm. moom pare na pour ñu def test ADN. te moom pare na pour de génne trois cent cinquante mille pour ñu defee ko test yi. def wax wax na lu gën a garaaw loolu. mu ne lan moom depuis moom mooy lan. mooy daal moom. Ah, ah. daa ñàkk ah. nguuraam. d'accord. daa ñàkk góor. waa kay. daa ñàkk ngóoraam depuis deux mille deux mille dix sept. waaw kon kon moom. munul violer kenn. <laughs> dëgg la moom violer wul mënful. waaw nee na moom dëgg la munul munul violer kenn. dëgg la waaw noonu daal la wax waaye juge ba nag. Mm. Eh, xam nga ku jigéen ki MD la tudd. Mm. Ah. xam nga dañuy bañ tooñ rek. MD mm. MD. Eh, am na doom bu góor. am na doom bu góor wax ko ci tribunal waaye juge ba xam nga. daa daa daa am lu mu sentir nee na. Hmm. na affaire ba le dix huit ju euh, août. Mm-hmm. quinze jours yi. Mm. na sama gars yi dem defi test yooyu. Mm-hmm. xool ndax kii ne dafa yomb. Hmm. depuis deux mille dix sept. waaw mm-hmm. ah, munul. mënul indi kenn problème. Ah, comme mënul violé kenn. violé kenn na ngay jàmm violation. waaw loolu daal. <laughs> loolu daal moo moo am léegi nag. yàlla rek a xam. yàlla rek xam waaye nañ mm-hmm. dina nañ toog déglu. fii mm-hmm. fii le 18. ci kàttanu yàlla le 18 yàggut le 18 semaine prochaine la de. di ñu ko teel a faram fàcceel fii. fii fii nañ ko incha allah incha allah. dinañ ko dinañ ko topp bu ñu jógee foofu dañuy dem Diourbel. Uh-huh. Diourbel ci quartier euh, mam Cheikh Ibra Fall. ñu koy ñu ko gën a xam ci kër Cheikh. ci kër Cheikh dafa am benn xale boo xam dafa réeroon depuis mardi. mardi la réeroon démb ñu for ko ci ci ci ci eh, benn force septique. waaw. lu ko dugal foofu. ah xamuñu lu ko dugal foofu nag ndax eh, bañ ba ba ba ko gaa yu dañ ko gis mu tëmb ci ci fosse bi ñu génnee ko woo ay woy juróom ñu jëli ko léegi daal kooru xale bi. Oh. indi nañ ko dakaar pour autopsie. pour pour autopsie parce que dañuy seen waa fa euh, seen waa kër yi dañuy ragal mu am ay kiiwu sacrifice yu ñu ci def am ay mutilation yu ñu dagg ci ay cëram affaire yooyu ñu xam exactement lan moo ko lan moo ko rey. loolu mën naa nekk. loolu mën naa nekk waaye tamit gis nga dañuy bàyyi xale yi ñuy taxawaalu xale yi kenn téewatu leen dugal leen ci kër yi denc leen toog di waxtaan ak xale yi amuñu sax seen jot mhm. xale boobu noonu yàlla rek moom ma gënal te it ñu koy ñaanal mu yeggalee ndawam aljana mhm. waaye boo demee yàlla xam na ne dañ koo bàyyi rek muy taxawaalu te loolu dafa dafa bari léegi ci réew mi mbas mi mhm. ñëw na ah du téye sa doom di lii ko mu mu mu nekk sa wet dafa metti dafa metti di fi mu ne nii tey ñoom ñoo ñàkk bu mm-hmm. fekkoon xëy na xëy na nag du loolu mais bu fekkoon ne tey ñoom taxawee nañ taxawaay bi nga xamante ni moo war yàlla dina dogal seen doom jooj dina màggee seen kanam mm-hmm. waaye nag lenn li lu ci bari noonu lay demee dañuy bàyyi xale ñuy taxawaalu mm-hmm. caat am na ñuy bàyyi xale yu ñuy taxawaalu mais des fois xale dina rëcc sax te doo ko yëg waaye yaay nga bañ a tayal xale dina rëcc man man de man man man defe naa ne ñama yor dañ ma dañ may sax jéppi nit dinga nga di nga di nga di nga yar dinga dinga dinga sàmm mais des fois xale dafa am ay xale yu ndaw yoo xam ne bu ñuy génn sax doo leen yëg yàlla xam na ko bu ñuy génn sax doo leen mais waxuma loolu tamit borom foos yi nga xam ne fu leen neex def fa foos te tamit seen foos yi bu waree màbb duñ ko dem xooli ji ñooñu ñooñu dañ leen a war a xoolaat bu baax doxul doxul ba ba dugg ci ko waaw lu nekk ngi ngi ci man kay damay wax ci mm. maanaam de façon général dëgg la mais responsabilité bi partagé la mooy xale waajur dafa war a téye doomam nit nag tamit mbedd mi bu noo ne mbeddum buur la ba lu ma neex laa ciy def mm. sa sa sa foos si soxo soo gisee ne am na problème problème bu ci ne danga ko teel a defar ndax yow rek yow mi dëkk ci kër gi mën ngaa jum daanu ci caat am na ñoo xam ne du ñu sóoraale yeneen i doomi aadama eh, seen bopp rek mais pour eh. intérêt personnel loolu lañ koy loolu lañ koy waxee waaw intérêt personnel la ñuy dund hmm. mais pour ñu sooraale keneen pour ñoom keneen maa ma maamadi la hmm. ñoom nag ñoom ñooy ki nga xamante ñoom ñooy Mamadou te billaahi ngi nii ci kaw. mooy ki nga xamante ne mooy borom lépp borom Maroc. waaw yal nañu yàlla dolli sutura. gis nga gis uh-huh. nga mais tamit am na benn affaire boo xam ne gis nga def ko lu bon. Uh-huh. mun na jot tegtal ñu ne ko utal ma xale bu mel nii. loo sàmm sàmm. lépp a ngi ci parce que man dama dama fi gis ñoo koo xamante ne. dama fi gis koo xamante ne dañu sàccoon dafa jóge woon Europe. Uh-huh. ñëw fii doomam puune la. koo xamante ne doom ji buy dem boutique sax mu ne ma gunge ko wala ma ut ko. Mm-hmm. mais doom ji dañ ko dafa am ñu ko bëggoon a jël mm-hmm. mais heureusement comme puune la xam nga koñ yëpp amuñu puune mm-hmm. léegi nag euh, am ku ne eh, kenn jël na kii puune jaar ci turam ne kii puune rek waa koñ ba génn daw waa ji bu ma xaw mu mais xam nga te kooku yaayam dafa vigilante. dafa vigilante. waaw am mais benn benn moment d'annotation bu toll nii ngay am sa doom. Mm-hmm. rek musiba am. billaahi kii dafa xel mi dafa wàññeeku. moroomu caat la maanaam du du du mag xale la. Mm-hmm. am jëkkër ba am ak jëkkër ji problème ñibbi kër magam ñu fekk ko fa mu toog xam ne mag ji jóge nekk nekkul ca kër ga ay xale fa ne am ku ñëw ne ko kaay mu dem ba tey gisuñu ko. waaw mi ngi noonu tey jii loolu sax bokk na ci li tax tey ñu daal di def suñu émission bi nga xamante ni ci li ñuy waaj a dugg di suñu thème tey bi mhm. si soxom bokk na ci maraboutage ak li nga xamante ni mooy la société sénégalaise dem nañ ba léegi maanaam booleetuñu ngor ak pour ñoom àdduna moom du jeex toujours dañuy dund dee amul yàlla nekku fi hmm. loolu yëpp dañ ko war a hmm. bàyyi xel moo tax nag ñu indi leen thème bi nga xamante ni ci kàttanu hmm. yàlla si soxo kontaan nañu euh, bu soobee yàlla dañuy joxante rendez-vous rek ba incha allah entre temps dinaa la na mu bàyyi ku fi ñëw nga jox ko loo sama papa sama papa jësine bi ma jënd te ñu ñaw ko ba pare doo bàyyi ba mu sol ko ah, sax mais du doy yow orange nga ko jëndal wax dëgg yàlla ak mauve mais bii bokkul ak yooyu couleur waaw couleur yi bokkul si saxo dafa joxal ko moom papa ko moom ah, ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen di kontaan jërëjëf ci jotaay bi di jox nit ñi daje mhm. euh, lundi ah mhm. suba amul waaw tey xam nga moom mooy wala yaay suba. suba am na suba mère Mbaye mooy présenté suba am na. waaw waaye waaye. Mbaye mooy présenté waaye jotaay suba am na mais jotaay bi du am. jërëjëf passe une excellente journée ñu ngi la koy ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax <laughs> alors ñu ngi amaat mbégte ak bànneex ba tey di euh, leen fàttali ne rek yéen a ci émission boulevard du net nga xamante ni heure bi bu jotee rek jàpp 10 heures dañuy dugg nag ci li nga xamante ne mooy suñu thème de la semaine saa su ne bu ñu ñëwee thème de la semaine bi dinañ indi ab coppite bu ci am rien que pour gën dalalaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy internet yi ñuy mën a joxe seen xalaat mais aussi di mën a participer bu baax a baax ci li nga mooy émission bi yaay li nga xamante ni fan yëpp moom lañ doon waxtaanee ba dalal ci démb sëñ Abdou Borom Mbuur borom tawféex bokk na ci maraboutage mi ngi fi bàyyi woon ak société sénégalaise li tax nag mu am benn tole bi li tax mu toll nenn li du lenn lu dul day permettre à tout un chacun day permettre ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo jot dund loolu ñu mën cee gis seen bopp joxe seeni témoignage mu nekk lu am am solo bu baaxee yanko ba ñu dem daal di dugg nag ci li nga xamante ni mooy temu bi à tout